xam ngeen affaire politique dafa doy waan ñun ñëpp ay nit leen kese léeg-léeg kenn ku ne ci ñun dina am ay seytaanem muy sa xalaat muy ay nit yu ñëw di wax ay être humain la ñu dong nag di nga nekk situation yoo xam ne waaye est-ce que wóor na ma joxe lii nguur kenn du ko dénkaane ndangam li ñu di ñëw di wax bu defee soo wéetee ne aus billahi mina sheytaani rajim parce que bu ko may rek nga gis sa bopp li ma def man munoon na tombé ci Biram Souleye Diop mii wala ci Abbas Fall mii wala ci Maymouna Dieye wala ci Cheikh Tidiane Dieye wala ci keneen ak keneen doyen Habib si mii dafa ñëw seet si ma la seule fois bu mu jot a ñëw ma seedeel ko ni c'est un homme de mission à son âge c'est un homme de mission parce que dafa saf ma ñu waxtaan ma ko budé yalla yàlla nattuñu natt nañu amuñu candidat passif mën na doon nga doon candidat bi mais ce sera pour ceci et ceci et cela mu ne bu soobee yalla non la koy défé te boobu ba légui sa suma ma dara ci mom suma ko ne li mag na nek sama waye luma ko wax mu défé ko non c'est un homme de mission ma sédé ko ko fi noné la koy seedeelee docteur Cheikh Tidiane djé bi nga xamné ne candidat la momit demb rek maa ngi koy seetaan ci nam gannaaw ma seetaanee doyen bi ak tagal bi alors dafa mu dem dégg ngén lim fay jital son premier tantanté da fa régler problème mu nu jomay fay mi kon di len féliciter bu baax ci lool wayé di wax ni mënoon na tombe ci kenn ku ne na Mbodj mii mënoon na nekk candidate Guirassy su ko neexoon mu jëli fiche keneen ak keneen mais tombe na ci Diomaye dama ko tànn nag wax naa leen ko ci vidéo ba ma koy tànn yàgg na te xam naa li tax ma tànn ko ma gëm ni Sonko mooy joomaay du waxantu du waxantu waye jomay moy sonko du waxantu biñu mujjé waxtan avant dernière fois bi parce que dembit it ñoo ne ba ndogondo ci la colonel bi ñëw nañu da ngay ni genn ma ko demal defari sa bagage ta nga defar sa sikim bi nak <laughs> alors mais bi mujjé waxtan dañu tok waxtan lu yag, ñi waxtan ci li nga xamné mi ngi am te nit ñi yaakaar ni mun na andi féewaloo suñu diggante mu wax ma lu am solo mu ne ma président wallahi politique su waroon dox sama diggante ak yow ma arrêté parce que damaa yëkkati doom tuddee la ko te damaa bëgg doom boobu dama bëgg doom boobu ilaa yow mi din ma la koy jox comme exemple kon suñu politique naroon boole ma bàyyi politique bi dama xam ni dëgg la ci moom ñaareel bi mooy nit ñaa ngi ne Diomaye comme beurul wax ni man nak jomay su ñewé ñi Sonko sax mo tane won ci ñom lol nak tiital na gaaya waye mo wax mo bëgg sédé ni jomay gëna noy fuf ci si ndax sama rétan ju bëri gi limu lek ci gannaaw ñi ma xam-xam nañ jomay dañuy waxtaan ben jour mom ak biram sama kër boobu affaire yi tar na métti na ma ne ñii billaahi bu ñu jëlee affaire bi Diomaye dama tegal ci suuf président loolu kenn du ko fi def fii amul chasse à la sorcière amul euh, fayantu amul et cetera keroog ma ne leen indi leen ma Diomaye mu ñëw ñu waxtaan waxtaan quatre heures de temps ma koy gunge ba ci bunt bi ma ne xaaral ma seetluwaat ko ma ne ko Diomaye ñii il faut lii dafa yomb quoi. ñii il faut ñu def nii mu ne ma mukk ci àdduna président mukk ci àdduna bu ñu def erreur yi ñu def ñu muy lu ma bëgg a yokk ci seede ci sama digganteeg moom waaye di wax askan wit nii tànnuma ci hasard ndax dafa di sama rakk di sama xarit ñu ànd lu yàgg ma xam li ma xam ci moom nee naa ko Diomaye nit ñaa ngi ñëw di wax rek limité visite mu ne ma président man dama am kersa ci nit nit du ñëw di wax ma ne ko di ma la déglu waaye ku mun a dugg sama nopp bi ba wëlbati sama xel gisaguma ko loolu ci mbindam la bi may daanelee nag gannaaw bu ma dénkaate sénégalais yi joomaay joomaay jëmmam amul solo sama bos amul solo donte dañ naan élection présidentielle la waaye projet la wax ak sénégalais yi am na ay aspects ci suñu programme boo xam ne nit ñaa ngi ci bëgg a profité wax ji bëri moom dina ci leeral waaye dinaa jëm doog a daaneel ba ca njëkk mooy nee naa ko président Diomaye mbirum vice président heureusement bi ñu nee sax lu ñu war a fal la donc du pour élection bi dugal nañ ko ci xalaat bi di ko xalaat waaye ñaari choix la ñu am boo gisee xalaat yooyu am mooy hyper présidentialisme bi am ba pare lépp nekk ci loxo benn nit moo tax ki jiite réew mi fi mu ne nii sonn na boobu sonn yem ñu ne kon ci biir pouvoir exécutif bi ci boppam war nañu mën a rééquilibrer les pouvoirs les attributions te loolu mun nañ ko am sans poste premier ministre sans poste vice président ndax boo jëlee réew mu mel ni France ba 2007 modèle bi la ñu amoon à partir de 2007 lañ def seen réforme. mais c'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation. Alors que nous devons rester c'est le gouvernement qui coordonne et exécute. Moi, tax soo déggee ay réformes Il yu que le premier ministre soit dem au charbon su n'est bu le cas. takk bagaasam kon ñaar mun na soit ñu am poste vice président mais sans beaucoup de pouvoir parce que nous avons ñaar ñoo fal jox un ñu yem ay pouvoir bis bu nous avons am en États-Unis vice-président il est là pour la suppléance au cas où et selon la nature de ses relations avec le président il n'y a pas wala problème. mais quand on a une légitimité électorale mu le président bi nga tolloo pouvoir il a un problème wala nga un premier ministre qui sera nommé mais ñu pas le pouvoir président jox ko pour rééquilibrer au sein de l'exécutif bu boobaa bu contentieux le président bi arbitré choix yooyu la gëm nak ci mandat bi probablement ah président Diomaye di mooy décider mais peut-être schéma bobu mo gëna plausible ñaaral bi bëgg a daanelee mbirum koppar question franc CFA ce que je veux dire sur la question du franc CFA parce que c'est souvent une question qui interpelle beaucoup plus les élites je crois que le programme a été fait dans des conditions extrêmement délicates et difficiles. Nous n'avons pas eu, nous, la possibilité d'y travailler sérieusement, parce que vous savez que quand vous êtes en détention, les conditions d'entrée et de sortie des courriers sont très complexes. Et les dernières observations qui ont été formulées, même par le candidat, n'ont pas pu être intégrées sur cette problématique-là. Mais je veux dire simplement qu'il faut savoir lire notre programme comme une continuité. On n'a pas créé un nouveau programme. En 2019, on a pris position sur la question de la monnaie. D'abord, à travers le livre "Solution" que j'ai présenté ici publiquement, mais ensuite dans le programme. Et notre démarche a été toujours de dire que nous sommes tous convaincus, toutes les élites sont convaincues qu'il y a un problème avec cette monnaie et qu'elle ne colle pas à nos impératifs de développement et qu'il faut qu'on assume nos responsabilités pour aller vers autre chose. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques. Mais nous avons toujours dit dans la démarche prudentielle que nous le ferons dans le cadre d'abord des ensembles sous-régionaux. Et si on ne parvient pas à faire bouger les lignes, nous prendrons nos responsabilités parce que 90% des pays du monde ont leur propre monnaie et parviennent à s'en sortir. En tout cas, la plupart s'en sortent. Et c'est cela qu'il faut comprendre comme aspect du programme. Aujourd'hui, nous avons une monnaie dans le cadre de l'UMA. Ça semble aller dans une certaine direction, mais ça va très lentement. Nous allons venir pour essayer de booster et aller vers les réformes qu'il faut. Mais nous avons toujours dit que nous, notre option, c'était même la CDAO, qui fait un ensemble de plus de 6 millions de kilomètres carrés, plus de 400 millions d'habitants, donc un marché qui a un potentiel énorme, mais si les préalables sont réglés, et ces préalables ne le sont pas encore. Et c'est ça notre option de base. Et c'est seulement si on ne parvient pas à avoir ça que nous considérons pouvoir aller avec notre propre monnaie. Donc, vous savez bien qu'un détenu a des, le programme a, a navigué une ou deux fois, mais on n'a pas pu, avant la présentation du programme, faire les dernières observations comme il le fallait. Et donc, il faut lire ce programme comme une continuité. Quand je demandais à l'équipe de démarrer le programme, je leur ai dit, travaillez sur la base, l'ossature de 2019 et essayez de voir s'il y a des actualisations à faire. C'est des précisions importantes parce que des gens en manque de programme et qui ne peuvent rien nous reprocher essaient de s'agripper sur cette question-là pour inquiéter le monde entier d'ailleurs, parce qu'ils ne s'adressent pas au peuple sénégalais. Et je tenais à faire ces petites précisions je m'excuse d'avoir été assez long. Euh, je ne vais pas faire la version française. Je laisse à, à notre candidat, le président Bassirou Diomaye Faye, le soin de clôturer cette conférence de presse. Je vous remercie.